Euh, maa ngi lay ziar bu baax Ibrahima jërëjëf ci message bi ci messenger gis naa ko euh, di la rassurer rek Ibrahima di la wax ne li ma wax ci dossier Mansour fay pour quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu amul dara lu ko mun a dindi Mansour fay ci tontom xam na ne day fen sénégal yi Mansour fay il ment et il sait qu'il en train de mentir aux Sénégalais ce que je dis est très claire te loolu dara du ko dindi quatre-vingt-dix-huit milliards la ñu leb ci turu Sénégal milliards yooyu ci contrat de marché bi dañu wax ne bu xaalis bi yegsee trésor public moo ko war a gérer ñu organiser wu fexe ba contourner loolu jël xaalis bi dugal ko ci compte société privée muy ASGC ci benn banque bu tudd FBN fii ci Ndakaaru xaalis boobu trésor public gisu ko may fàttali ne ministère des finance bi nga xam ne moom rek moo mën a valider ab contrat de crédit ministère des finance validé wu ko CNDP boobu muy tudd moom Mansour fay xam na ne naxaate la ci jublu te xam na ne day fen parce que CNDP étape la ci procédure d'emprunt c'est le ministre des finances lui-même qui doit valider la procédure d'emprunt le dossier et ça n'a pas été du dëgg moom Mansour Faye xam na ne du dëgg xaalis bi mu ngi ci banque bu nekk fii ñu tudde ko FBN xaalis boobu day générer intérêt ci taux wu 3 pour cent ñu jël intérêt yi dugal ko ci compte boo xam ne dañ ko ubbi ci turu état bu Sénégal loo xam ne ministère des finances yëgu ko trésor yëgu ko cin faqul bënnul la fa ne woon jógu fa Mansour fay li ma lay laaj mooy ani xaalis bi suñu xaalis suñu 98 milliards la ñu bëgg nga wax ñu li ci des anamu moom Mansour fay xam na ne dafay fen parce que moom ci boppam am na correspondance yu mu bind lu jëm ci loolu te bir na ko ne li ma ko wax moo am Mansour fay nag Macky Sall moo koy protéger mais nañu xam ne trois cent 347 jours moo leen dese ci Sénégal jeex na gas yi jeex na xaalisu Sénégal dina leer xaalisu Sénégal lu mu leen jaral ñoom politiciens professionnels manipulateurs yooyu ñoom ñi nga xam ne muucu alalu réew mi la ñu fi nekkee man apprenti politicien bi danaa bokk ci ñi koy xeex pour ñu leeral xaalisu réew mi moom Mansour Faye su ma ko waxee ne ko quatre-vingt-dix-huit Sénégal yooyu dana nu wax li des ci xaalis bi anamu ak fu mu nekk bu ma ko ko waxee moom xam ne ne taxaw naa pour loolu mu nekk et incha allah Ibrahima bu la dara metti li ma ci wax tarafatal ayn du ko dindi